doomu aadama war naa góor góorgóor lool ba fonk ay waajuram rawatina yaay ndax am na ñoo xam ni li nga am ci sa yaay amuñu ko ñii dañoo juddu fekk seen waajur génn àdduna ñii xam seen yaay ñii ay image rek lañuy gis seen yaay am na ñoo xam ni sax ay gént rek lañ am ci ñoom ñii ay histoire rek yu ñu leen nettali ci seen waajur teewul ñu warmal seeni waajur ba kenn du yab seen waajur jaarle ko ci ñoom am na ñu ñàkk jom nga judd sa waajur ëmb la boot la yar la jaarle fi mu la war a jaarle taxawu la nga màgg di wan sa ndey ni am doole wan ko ginnaaw ay waay kookoo ñàkk jom léegi léeg nit complexe jàpp ko ba du wormal waajuram am na ñoo xam ne sax boo leen laajoon référence sañ na ñoo tudd ko xam ni bokkut ak ñoom benn gis-gis deful ci ñoom dara fàtte seen waajur wu jigéen te wallaahi waajur wu jigéen doy na référence nit nag mënul am lu gën a foor yaay nit nag ak lu mën a defal juróom taxul mu dab akam bo den jëlun aduna ak li ci bir jox ko sa wayjur taxul nga jot akam kon den rek nga man lo xam ci lu bax defal ko lo xam ci lu bax wax ko lo man ci lu bax yene ko ko ta warmal ko doomu adama nak bu bëggee ñu warmal wayjuram fexé warmal wayjuru jamm dara gënul ñak solo nit di taxaw ñu ngi yëpp yaayam jaarle ko ci moom kon nañ fonkaat suñu waajur juri nañ fonkaat suñu waajur yi nañ fonkaat suñu waajur yi